sëriñ ibra jor amar sëriñ ibra joor amar mi ngi gane àdduna ci dëkk bii di njarnde njarnde mi ngi ci commune rurale bu pekkees ci département bu tiwaawoon ci région de Thiès ci suuf sii di kajoor mi ngi gane àdduna ci atum 1863 ci dëkk bii di njarnde doom la ci sëriñ gumma binta amar ak kii di soxna joor mbaaba baabu amar sëriñ ibrahima joor amar ñii la bokkal soxna joor mbaaba baabu amar muy ku ñuy wax sëriñ ndongo Amar Dior sëriñ Paate Amar Dior sëriñ Mamma joor Amar ak moom Cheikh Ibrahima joor Amar kon ñett la bokkal waajur wu jigéen ak moom muy ñeent bi matee dal lii di alxuraanul karim ci ëttub waajuram la dala lii di alxuraanul karim ci dëkk boobu mu cosaanoo di njarne fa la jànge alxuraanul karim ba géeju fa lool ci kaamil bi ak lii di alxuraan ak xam-xam mu nekkit ci ginnaaw ay magam ak lii di waajuram ngir di liggéey ci ëttub waajuram ak itam alxuraan ko def ndax bu leen fàtte ne waajuram wii di sëriñ gumma binta amar mi taang fóori la woon tey daare alxuraan ju mag la yoroon ci njarne ñu ngi bokkitim ci famille bii di lansaar di xeetub yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ginnaaw am njàngam moom sëriñ ibrahima joor amar ci dëkk boobu di njarnet la am bis magam jii di sëriñ maam ma joor amar demoon ndar doon yaxantu maanaam li ñu tuddee am njaay mu nekk fa di ko def foofu itam la gisee woon ak jëmm ju tedd jii di maam cheikh El Hadji si bañ amante woon ay wóllëre maam cheikh El Hadji Malick xam ne sëriñ maam ma joor amar mii ci famille bu baax la bokk ko wax ne bis dana ñëw ma ñëw njarnde googu ziyaari si sa waajur wu tedd wax ndax xam naa ne yow mi ku la gis xam ne fu baax nga bokk teewul itam kii di sëriñ tuubaa seexul xaddim amoon na wëllëre ak waajuru kii di seex ibrahima joor amar muy sëriñ gumba binta amar mi am bis itam mu solu dàllam ñëw di seet si sëriñ gumba binta amar mi ci dëkk bii di njarne ñaari kilifa diine yooyu dajee nañ ci benn bis ci dëkk boobu di njarne kon li indi maam cheikh si njarne laa leen doon wax ak li indi seexul xaddiim njarne maam cheikh El Hadji Malick si doomu sëriñ gumba amar bii di sëriñ maam Madior amar la xamanteel ba ziyaare si waajuram sëriñ tubaa seexul xaddiim sëriñ gumba amar mii di seen waajur la xamlanteel ba ñëwoon ci dëkk boobu itam doon ko ziyaare si ñoom ñaar ñoo bokk benn bis buñ dajee ci dëkk boobu di njarne keroog ba ñu ñëwee ci dëkk boobu di njarne muy maam cheikh El Hadji si ak kii di sëriñ tuubaa seexul xaddiim tàkkusaan ak lii di timis sëriñ gumba binta amar jël sëriñ bayti ndongo amar joor ak kii di sëriñ paate joor amar jox ko sëriñ tuuba seexul xaddiim jël yeneen ñaari doomam yi muy sëriñ ibrahima joor amar ak kii di sëriñ mamma joor amar jox ko maam cheikh elaaji malik si kon mu jël ñaar ñi jébbal ko seexul xaddiim jël ñaar ñi jox leen maam cheikh elaaji malik si waaye ñoom ñeent ñooñu kenn ku ne ci ñaari kilifa yi ba ngay dem danga leen faa bawaat ngir ñu wéelaat seen ginnaaw waajur wa di ko liggéeyal ngir xaar bis ñëw nga laaj leen keroog ba fa ñaari jëmm yu tedd yi ñëwee nii la sëriñ Gumba Amar def ci njabootam Cheikh Ibrahima joor Amar mi ñuy waxtaane maam Cheikh El Hadji si la ko waa juróom joxoon di sëriñ Gumba Binta Amar mi sëriñ Touba Seexul Xaddim jóge fa am lii di takk-takk ak tubaab bi ñu yóbbu ko ci géej gi ci réew mu ñuy wax Gabon mu def fa juróom-ñaari at ak weer ak i fan ñibbisi waat Sénégal bi mu ñëwaatee Sénégal toog fi ab diir wala lu tollu juróom-ñaari weer amaat takk-takk ak yóbbu nag kii di sëriñ tubaa seexul xaddim ci réew mii di gànnaar gànnaar googu ci atu 1903 la fa sëriñ tubaa seexul xaddim dem ba muy dem yóbbaale na sëriñ paate joor amar mii ndax waxoon naa leen ne moom la ko waajuram mu joxoon di sëriñ gumba binta amar mii booba sëriñ ibra joor mii ma nga ca kër waajuram ndax maam cheikh El Hadji Malick la ko sëriñ gumba binta amar mii joxoon li indi nag sëriñ ibrahima joor amar mii ci atub sëriñ tuubaa seexul xaddim laa leen bëgg a wax leen ne maam Cheikh El Hadji Malick si la ko waajuram jébbaloon keroog bi mu ñëwee njar njarne te fekkante woon faak sëriñ Touba Seexul Xaddiim kon nag ma wax leen li indi Cheikh Ibrahima joor Amar mi ci ëttub sëriñ Touba Seexul Xaddiim bi sëriñ Touba Seexul Xaddiim demee gànnaar nag la àndoon ak kii di sëriñ Paate joor Amar sëriñ Paate joor Amar di woo nag rakkam jii di sëriñ Ibrahima joor Amar ngir di ko xamal ne li mu gis ci ku tedd kii daal di sëriñ Touba Seexul Xaddiim doy na ko woo na ko ay yooni waaye cheikh ibrahima joor amar dëkkitim di def ay listixaar ba xam ay mbiram fan lay mujj listixaar gi mujj def ci la xamee ne daal war naa fekki ku baax kii di sëriñ tuubaa seexul xaddiim ca gànnaar mu jóge njarne dox nag fas yéene wuti gànnaar ci atum 1904 jàpp 1905 bi muy dox ci yoon wi laataa muy egg gànnaar dox bi metti na lool ci jëmm ji ba mujj gi mënatuta dem ndax liñ tudde tële foofu mu tëlee woon ci yoonu gànnaar wi laataa mu fay egg la dogu nag fas yéene jaayanteeg sëriñ tuubaa seexul xaddiim ca la binde genn xasida gu ñuy wax tawasul ngir nag di seede digganteem ak sëriñ tuubaa seexul xaddiim di sàkku ci sëriñ tuubaa seexul xaddiim ci xasida ga di ko wax ne daal tëli gii mu tëli daal bu sañoon dana mën a ñëw ba egsi ci moom bu fekkee ne itam nag munta egsi daal xasida gi na ko doy seede ne amoon na yéeney egsi ci seexul xaddiim ñu teewlu way yi cheikh ibrahima joor amar bindoon keroog bi muy wëri sëriñ tuubaa seexul xaddiim te munta egg ca yoon wa mu bind xasida goo xam ne ni bu eggul itim xasida gi doy na ko seede yaa cheyxanaa yaa ahmadul mbakiyu yaa man tafuuxal jiila yaa waliyu yaa man tanuuru xalbu man taallaqa bikum li wajhi zil jalaali mutlaqa yaa man xafista kulla man bikum raja lilaahi fi daarayni kurbi farrija fahfaz li andarati wa wahdati xatta akuuna laaxiqan bi rifxati yaa man tujib man dacaaka min bacid xaasin wa daanin wal tujib bizil murid ajib bi man yadcuuka min bacid wala yara gayraka min mufid ijaabatan tugni an ilmakaabidi dunya wa oxra laa takun bi taaridi yaa sheyxanaa yaa xutbanaa yaa nuuranaa ajib duaana wa amin rawana ginnaaw bu mu bindee xaside googu di tawasul ba noppi ab diir rek lañ ca teg ab naar bu waru giléem jaar fa mu waxtaan ak naar ba di ko xamal ne gànnaar la jëm di fekki ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim naar bi xamal na ko ne mën na ko yóbbu fi sëriñ tuuba seexul xaddiim nekk di gàdd ga ca dëkk boobu di sarsaara cheikh ibrahima joor amar xamal naar bi ne ko ne yorut nag xaalis jamono ji waaye su eggee ci magam jooju di sëriñ paate joor amar li mu waxanteeg moom dina ko ko jox kon lii moo indi Cheikh Ibrahima joor Amar ci gànnaar lii mooy xat-xat bi ak coonoy yoon wi lii it mooy sababub cheikh ibrahima joor amar dem lii di gànnaar fekki sëriñ tuuba seexul xaddiim ci ndimbalul magam sëriñ paate joor amar bi mu eggee gànnaar wax magam jii di sëriñ paate joor amar lim waxanteeg boroom giléem gi magam ji fay boroom giléem gi bi sëriñ tuuba seexul xaddiim ubbee mu ko jëmm jii di sëriñ ibrahima joor amar mu jaayante waat fa wala mu jaayante fa ak sëriñ tuuba seexul xaddiim sëriñ tuuba seexul xaddiim gànnaar di ko fa liggéeyloo ba li ñu tudde ab yónni sax def na ko fa ndax dafa am genn téere bu seexul xaddim yónni woon kii di cheikh ibrahima joor amar ci bi mu nekkee gànnaar ziyaare si ko fa téere bi moo tudd al bu alaa duniya la téere bi seexul xaddim yónni woon cheikh ibrahima joor amar mii di ko wax ne na ko wër ci gànnaar ndax da ko soxla bu ko amul na ko jaral mu dem ba ndar cheikh ibrahima joor amar wër gànnaar ba gànnaar daj amul lii di téere wër waaye taxul mu am téere bi bi mu jógee ndar di delluwaat gànnaar nag la xelam dem ci wóllëre waajuram wi nga xam ni daana fa ànd ak waajuram di ko seeti ci naar bu ñuy wax ahmadu buddi ahmadu buddi mi naarub gànnaar la woon ci gànnaar itam la nekkoon cheikh ibrahima joor amar mi ñëwee ci naar bii di ahmadu buddi di ko wax ne sëriñ tuubaa seexul xaddim moo koy wutloo benn téere bu ñuy wax bu ala duniya te wër na ko ci gànnaar ba demoon ndar waaye ci moom mii la ko yaakaare ba xam am na ko naar bi jóg xool ay bagaasam gis téere boobu nga xam ne nii moom la sëriñ tuuba seexul xaddim yónni cheikh ibrahima joor jox ko te di ko sàkkuwaale ci sëriñ tuuba seexul xadim bu demee na ko nuyul kii di yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam te yonent bi na ko fay nuyoo di ko xamalaat tim ne ko na ko nuyul sëriñam ba cheikh tiijaan chérif te di ko xamal ne cheikh tiijaan chérif itim na ko fay nuyoo bi naar bi joxe cheikh ibrahima joor lii di téere bi lii itim la ko yóbbante woon ci sëriñ tuuba seexul xadim sëriñ ibrahima joor amar bi muy egsi ci sëriñ tuuba seexul sëriñ tuuba seexul xaddiim di bind way yoo xam ne ni noppi uppeegul bi mu egsee rek la ko sëriñ tuubaa seexul xaddiim jox way yooye ne ko demal jox ko ahmadu buddi mii te di ko wax ne yonent bi fay na ko nuyoo ak sangam ba di cheikh ahmed tidiane sérif mii lii mooy way ya sëriñ tuubaa yónni woon cheikh ibrahima joor amar mii ngir mu yitti ko naar bi di ahmadu buddi lii ma la wax itam soo demee ci téereb sëriñ muhammadu lamin jóob dagana bii ñuy wax irwaawu nabi da nga ko fa fekk rabbi salaamin tayyibin qad faaqa كل سلام يجلب الوفاق رد سلام طيب قد ساق كل سلام يجلب الوفاق من عبد ربه قديم المصطفى إلى الذي حاز علم قد اجتبى يا أيها الشيق العظيم الثاني وانت من درر كل شان وانت من كلب خير فيك إلى الجنان مع مختفيك أما أنك الباقي من الأسواء بحرمة المختار في اللواء وجاء شيخي كرد التيجاني من سار عند الخر كالمهد صلى وسلم على خير الورى باق له قاد الغلا والصورة رضوان باق يجلب الوفاق على ولي man qafaahu faaqa cheikh ibrahima joor amar lii di gànnaar nag toogu fa seexul xaddiim da ko yeewi mu ñibbisi waat sénégal bi sëriñ tubaa seexul xaddiim ñëwee ca yéen daana dem ca yéen di ko ziyaare ji bi mu nekkee njaaree mitim naka noonu daana ko fa fekk di ko ziyaare ji lii di ngërëm itim sëriñ ibrahima joor amar mi am na ko mook sëriñ bii di sëriñ ibrahima xari mbàkke ñoom ñaar la seexul xaddiim gërëmandoo ci benn bis mu wax kii di cheikh ibrahima joor amar mi mu dëkk bu ñuy wax bu Lo mu wax kii di sëriñ Ibrahima Xari Mbàkke mu dem dëkk bu ñuy wax Coré Ngéen kon keroog bi leen seexul xaddim gërëmee kenn ku ne dëkk bii la la wax nga dem fa Cheikh Ibrahima joor Amar sanc na nag ay dëkk sanc na dëkk bu ñuy wax Tawféex mi ci kajoor sanc na beneen dëkk bu ñuy wax daarul salaam sanc na itam fii nekkoon ci ginnaaw sonaateel bi ay tool ba foofa sax amoon na fa kër keroog bi mu génnee àdduna ci mbàkke bawal ci këram googu nekkoon ci ginnaaw sonaateel foofu lañ ko fanaanal laataa ñu koy yóbbu tuubaa denc ko mi ko tudde woon daaru xoquba wala ba daaru la tudde woon foofu mu sancoon ci ginnaaw sonaateel bi kii di cheikh ibrahima joor amar nekkoon na nag nit ku kiimaane wala ku yéeme daana wax itam lu baree bari lu dikkagul ñu man cee jàpp rek yenn lenn ci yum wax ndax kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke bi mu sancee dëkk bii di taayif waxoon na kii di cheikh ibrahima joor amar demal xoolal ma dëkk boobu di taayif ba xam loo fa gis muy sama tool ya bi cheikh ibrahima joor amar ñëwee dafa wax cheikh mamadul moustapha ne ko gisumay tool ay taax laa gis te dëkk boobu di taayif ci kanam tuuti dana nekk ay taax yaakaar naa ne waxi sëriñ ibrahima joor amar jooju am na kii di président de la république bi fi nekkoon di abdou diouf itim bi waajuram nekkee ci poste bu mbàkke bii di poste lettre bi ndax affecté teewoon nañ fi waajuru président de la république Abdou Diouf di Njaay Diouf yaayu Abdou juuf di président de la république di soxna Kumba Dem wëlërante woon naag soxna Sëriñ Ibrahima Dior Amar mi ñu koy wax soxna Gayloo mu am bis booba Abdou Diouf tu tànk la bopp bu metti sonaloon ko soxna Kumba Dem di jàmbat bopp Abdou juuf bii di metti rek soxna Gayloo mii di soxna Seex Ibrahima joor Amar mi ne ko nañ dem ci sëriñ bi mu ñaanal ko keroog biñ indee président de la république Abdou Diouf ci sëriñ Ibrahima Dior Amar mi dafa wax ne li mu war a ëllëg muy lii di Sénégal war na koo jiite ji yan boobu moo diis moo tax boppam bii di metti te la ko bind la ab téere ñaanal ko mu jóg dem ba loola sax kii di président de la république ab Diouf sàmm na ko ba yenn ci dëkki amar amar yi def na fa rang-rang ak ñaari forage te kóllëre googa ak wax ji Cheikh Ibrahima Dior Amar waxoon moo waral loola ba tey itam toog na ci jataay moom Cheikh Ibrahima Dior Amar taalibeem yu bari wër ko mu ne gis naa ci biir mbooloo mii de ku jàngul dara nekk buur nag te wax jooja ku ñuy wax El Hadji Mbari Njaay moo ko moomoon El Hadji Mbari Njaay mi nekk na président commune rurale ba Sadio ba ni mu faatoo moom sax daana ko bàkkoo di wax ni sama président commune rurale gii de nit munu koo nangu ci man xanaa damay dund ba faatu rek te noonu itam ni la amee kon nitu kii maan la woon lii di Mbàkke Bawol itam Cheikh Modou Moustapha Mbàkke moo ko joxoon ndigal mu dëkk fi ndax moo ko xamaloon ne demal ba jàkkaarloog raayu Mbàkke ba nga dëkk fa kër gii mu dëkke ci Mbàkke Bawol kii du Cheikh Modou Moustapha Mbàkke moo ñëw ba nattal ko boppam ngir di ko xamal ne bëgg na daal bis bu jógee njaareem wala mu am soxlas dem njaareem su wàccee ci raay bi wala mu ñëwoon mbàkke bawal dana jaar lii di këram ngir dal fi kon sababu dëkk mbàkke bawal bi lool mooy li ko waral bind na itam ay xasida ak ay way ngir jagleel ko njabootuk sëriñ tuubaa seexul xaddiim gi ñu ràññee xasida gim gën a bind wala téere bi mu gën a bind ñu koy wax minnaaxul kawri téere la boo xam ne nii ci nangam dana wér téere bi ku dem ci njaboot gi ñu wan la ko moom cheikh ibrahima joor amar mu ngi génn àdduna bisub ajjuma fukki fan ak juróom ñaar ci weeru shaxbaan di weer wii di baraxlu ci atu 1364 ci gàddaay gi ajjuma fukki fan ak juróom ñaar ci weeru baraxlu ñu koy wax shaxbaan ci atu 1364 ci gàddaay gi ci mbàkke bawal dëppoo muy vendredi 27 juillet 1945 vendredi 27 7 juillet 1945 ci mbàkke bawal ñu fanaanal ko ci toolam yii di xoq ba daaru nekk ci ginnaaw sonatel bu tuubaa bi keroog bi muy génn àdduna feebar bu metti moo amoon ci réew mi bu ñuy wax njarmal tubaab bi génne woon décret di wax ne bépp nit boo xam ne nii faatoon na fenn buñ ko yóbbu fenn nañ ko denc foofa waaye lii di njabootu cheikh ibrahima joor amar amuk dogu rekk na seen waajur wa tuubaa lañ koy denc ndax foofa la yaakaar cheikh ibrahima joor amar ay xalifaam nii la tëddee sëriñ May Amar moo ko wutu ci atum 1945 ba atum 1990 ñaareelu xalifa sëriñ Ibrahima Dior Amar mooy sëriñ Balla Amar moo ko wutu ci atum 1990 ba 2011 2011 ba nëgëni nag sëtam bii ñuy wax sëriñ Mouhamadou ba Amar moo fi nekk toog toogaayu sëriñ Ibrahima joor Amar ak ay waajuram waaye kër googu am na itam ñu tudde jëwriñ mooy sëriñ Maam Gumba Amar moo nekk jëwriñu kër ga moom la sëriñ bi toy doyloo te jox ko lépp njaboot gi waaye kii di taawam bi ko njëkk a wuutu di sëriñ may amar am na mag ju ñuy wax sëriñ basiiru amar njarnde moom moo nekkoon taawu cheikh ibrahima joor amar waxoon naa leen ne cheikh ibrahima joor amar maam cheikh elaaji malik la ko waajuram jox moo tax bu nekkee ci ëttub seexul xaddiim sëriñ may amar mooy ki ko fi wuutu waaye sëriñ basiiru amar njarnde mi ngi fi ci ëttub maam cheikh elaaji malik si sëñ ibra joor amar nag am na fàttaliku li ñu tudde nag ak màggal muy fukki fan ak nag ci weeru baraxlu bis boobu nag lañ koy fàttalikoo nag ci mbàkke bawal sëtëm bii di sëriñ Afia Amar ibnu sëriñ Mbay Amar ibnu sëriñ Ibra Joor Amar moo koy amal nag at mu jot ci bëccëgu fukki fan ak juróom-ñaar nag ci weeru baraxlu boroom gis-gis bu sori ba doomu soxna joor mbàbba baabu Amar ja ak kii di sëriñ Gumba Binta Amar yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te defal Sénégal ak yiw ci darajey xeet wi ñu bokk di lan Sarr yal na yàlla saafara metti metti réew